dal len ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz mu TV cant ak ñen len si top bi ngeen di top sen bi li gëna fess moy mooy sortie président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay tay jii nii lu le mel nak journaliste bi di Madiambal Diagne dat nakoy koy mom Madiambal Diagne xam ne ki di président Ousmane Sonko dina génn tay si kasso bi ak Bassirou Diomaye fay dinañ si dik loolu lépp gën ko yaatal waye tamit waxna ne tamit ki di Amadou président Macky Sall dina dëggal que mooy seen candidat comme ñu bari nag liñ jàppoon ne nag woolu gi ko woolu woon dañ koo naroon a éliminer daal di samp kii di Boun Abdallah Dionne loolu wérul moom journaliste bi di Madiambal Diagne loolu la daal di xamle dinañ si digg tamit eh, gën koo yaatal kii di président Ousmane Sonko at ba dog na fële sa Assemblée nationale waa ba woote nañ ko. matna na semaine kon jamono bi ni mom president Ousmane Sonko amatu dara lu ñeen wara a téwé a kasso bi mom ak Bassirou Diomaye Faye comme loi d'amnistie bi daal di nañ koy voter jàmbaar bu fi annoncé génn Seydina Ousmane way wara ni seen seen i pexe dëng na ba ci lool seen i xëjju jubut seen xëjju pexe juboon Seydina Ousmane ci kasso bi lay faato Cheikh Mouhamadou Bassirou Diomaye Faye ci kasso bi lay faato fayal laaw ay nag yalla bu mo yoral bopp ay mbiram wallahi ndeysaan waaw nag c'est normal de ndax xam naa ñi yëngu ci wàllu yoon ñëpp daal wax nañ ni loi bi buñ ko wootee assemblée ba pare juróom benn fan moom la waa assemblée am ndax kenn dana ci def recours waa wala déet ala kulaaxaan juróom benn fan yi bu matee la fekk maanaam loi bi fi ñu ko jaaraloon pour woote ko ci yàqante ci lañ ko wootee woon yàqante googu moo leen di topp ah sëñ boobu ci pale bi ah buñ ko yàqante woon juróom-ñetti fan la am maanaam pour pour promulguer ko buñ ko yakante rek ñeen defal lam te ñeen defal yoy yep man la nak kon fi de li cheikh mahamadou bashir jumay fay aw sidda ousmane ndafa bëgg ko manam dañuy genn ndafa bañ ko dañuy genn loolu la yalla dogal waaw ñoom nag wax yàlla seen génn gi de génn ko ànd ak personnalité diggante la de ñoo xam ne ñaara fenaloon soosaloon la tëj lañ ci biir kaso bi ñoo dem ba de ay lu yewet ala ku la xaal liñ doon wax lépp dara du ci dëgg ay paccal forox la woon ala ku la xaal yéen ñu set ngeen ah loolu de moom la yonente yàlla yusufa amoon ah bañ di koo kaay génn daal dañ leen génnuma waaw ah, ñama taxaloon ñooy taxaw fii ah fësal ci àddina bépp ñu xam ne ci fen ci lañ nekkoon alaa ko daal ma doon a mën a génn ah buur ba daal di woolu gaa yi ko taxaloon gaa de nag ah wax dëgg yàlla nag ay lu yoon ala ana xaq ah, waaw ñun ñun ñun ci kaw ay tuuma rek waaye nag alaa ko daal kii ku set la waaw ah, daanaka foofu la waaw ndax daayo boobu de daayo boobu yénti yàlla Yuusuf amoon ba moom la si dansman mi am mook Cheikh Mamadou Bassirou Diomaye Faye mboolem ñu leen tëjaloon ci kaso bi loolu nag sigg la loolu honneur la wax dëgg yàlla waaw yàlla leen yàlla taxawu waaw ñu ñëw jël réew mi nag waaw te doxal ko waaw may rassuré nag ñiy taxaw maanaam euh, di ab lu ñuy tiite que maanaam euh, ragal jàpp ni élection dañ koy tuxal gis nga loolu maanaam bu leen ci xalaat teg leen ko fële élection yoo xam ne di suur moo ci des ñu naan ay tuxal ko xalaat yi dof la sax maanaam di di di di jàpp ne maanaam élection dañ ko dandale billaahi lancim daf leen waajal seen bopp tàngale campagne bi ci tawfiix yàlla élection day am 24 mars bi ñu jël réew bi ci tawfiix yàlla. waaw ah, la ko ko wax waaye a waaw xam naa ni daanaka te tey laa ko gën a jàppee fenkat donte nag nit mën naa doon ab fenkat lool te fekk na mën naa wax dëgg nag waaw ah, lii mu wax man sukkandiku ma ci ay waxam sax damaa xam ni. génne gi ko war a man a nekk la tey jii moom laa doon leeral ni maanaam yoon dafa am lu muy doxee loi d'amnistie buñ ko wootee ba yóbbu ko assemblée ba jàllale ko ba pare dana am six jours yoo xam ne dañuy bàyyi député yi ku ci bëgg a def recours def ci recours te six jours yi mën na te kenn defu ci recours ñu ne loi boobu noonu bu fekkee fi ko jaarale maanaam ci yàkkamtee ci laa amee woon alaa kulli haal bu boobaa président bi ñeenti fan la am bu ko defee promil jël ko maanaam yóbbu ko ñu ñu ñu jëmmal ko ñuy jàppoon ñu bàyyi leen léegi nag bu fekkee ne fi ñu ko jaarale woon ci buñ koy woote du woon ak yàqamti njiitu réew bi juróom-ñetti fan la am te loi bi loi d'amnistie bi koy woote ci yàqamti ci lañ ko wootee woon looloo tax maanaam ñeenti fan rek la njiitu réew bi sañ a am mu suñu ko yokk léegi ñeenti fan yooyu dafa mat looloo tax maanaam c'est normal maanaam si Ousmane génn tey ji moo Cheikh Mouhamadou Bassirou Diomaye Faye mi ngi mel ni maanaam weeru feeñ ngi gis weeru bi feeñ ñëpp xam ne weeru feeñ la ah nga annoncé ni suba dañu woor loolu nga joxe du information ah dañuy xam ne c'est normal suba dañoo war a woor mooy li ma jëmbal wax ma jëmbal man nañoo tasaare audio bi waaye li ma ci xibloon rek leeral ni loolu normal la bu génn dee am ah pas ñu bàyyi ñu sukkandiku ci ki nga xam ne ab fenkat la alaa kulli haal ku ñu xamee ci fen la donte nag ñu xamee la ci fen teewul nag mën ngaa wax dëgg alaa kulli haal lii mu wax mën naa doon dëgg voilà le komba continue gars yi la combat continue et eh, ñu gën a dëgëral taxawaay bi ñu gën a dëgëral taxawaay bi et puis bañ a naagu gën a taxaw parce que élection moom kon ni ma leen ko waxee nit mun na ñëw maanaam candidat bi am pourcentage bu tuuti nu muy gën a demee di gën a dem et eh, pourcentage bi di yokk waaye candidat am mun na am chantage bu e, boo xamante ne ga nii mu mucc ayib lay doon ni ñuy gën a demee muy gën a wàcc na ngeen kon coalition Diomaye 2024 nii nga xamante ne que ni tàmbale nañ ko ñu ngi ñaan subhanahu wa taala may ñu kattan ak ndëgër et ba mën koo continuer.

buñu ñu xalaatee li ñu dund depuis 2012 ba tey waaye bu ñu xalaatee depuis mars 2021 li ñu dund ba léegi wax dëgg yàlla suñu xalaatee loolu rek war nañu mun a war nañoo mun a fàtte bépp coono waaye fii Sénégal jëm fii ak cinq ans fi Sénégal jëm fii ak dix ans fi Sénégal jëm fii ak cinquante ans fi Sénégal jëm fi Sénégal jëm fi Sénégal jëm kon fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin mbokk yi lii bu fekkente ne que ni bàyyi nañ xel rek maanaam dinañ mun a dékku bépp coono di leen wax ne force force incha allahu taala nous sommes proches à la victoire et lii ñuy wax si mbirum président Ousmane Sonko gars yi buñ si concentré wu parce que Macky Sall amul lenn lu muy def si politique gratuitement ok ñoom ñoo ko tuumaaloon ñoom ñoo ko setal est-ce que comprendre ngeen ñoo ko tuumaaloon ñoom ñoo ko setal ñu ngi wax nag naan xaw ma ku nekk information yi dafa bari man bugguma di ci tardé man jàpp naa ne instant bi nii patriote yi am nañ benn maturité politique ba buñ ne bisum vote leen bàyyi président Ousmane Sonko xanaa nit ñi duñ bàyyi seen bureau de vote yi di dem ci kër président Ousmane Sonko ah si li ma jàpp boog man pour man vote bi am na importance boo xam ne. patriotes yi sénégalais yi am nañ benn maturité boo xam ne xanaa duñ leen wax ne président Ousmane Sonko génn na ñu war a dem voté ji ñu ne noonoo ñoom dañuy dem cité kër góor gi wala dañuy dem Ziguinchor si président Ousmane Sonko <laughs> vraiment voilà man si li ma jàpp boog kon li am solo ba am solo mooy ne leen concentré wu si yan stratégie leen di teg ba nga xamante ne que ni labaj du am labaj du am mooy ñu organiser wu de telle sorte que parce que ñoom en général bépp. quartier wala bépp bureau boo xam ne xam ne ne fii eh, Pastef moo fay am doole sabotage mun naa am su ko defee responsable Pastef yi ak responsable tamit société civile bi ak nguur gi ñoom ñu jël seen responsabilité teg sécurité bu doy boo xamante ne que ni kenn du mun a ñëw naan dafay saboter élection yi comprendre ngeen bu baax su ko defee ñun tamit ñu def la tout mbokk yi

soo jëlee weeru koor gi dugal ko ci sa biir bopp <laughs> ah sa waay dana la sonal voilà mais jàppal na lii jaamu yàlla la rek waa loo war def la comprendre ngeen xel mooy doomu aadama dama ne leen mbokk yi buñ xalaatee misère ak catastrophe gii sénégale yi di dund ñii di am problème mu luwaas ñii di am problème mu lekk ñii di am problème mu naan ñii di am problème mu ordonnance ñii di am problème mu liggéey ñii di am problème ñii di am problème wax dëgg yàlla lii yëpp nit ki bu fekkante ne que nii def na ko ci boppam ñu ne la yow fii ay juróom-ñeenti fan wala fukki fan moo des pour yow yàlla saafara lii waa mbokk yi nit kooku moom nan la mun a toogee di tëndee fal wala muy am lu muy xalaat ah yow misère bi ngay dund catastrophe bi ngay dund moo xam si injustice moo xam si économie même sa géej ñu ngi ko jël jaay ah franc CFA bi Khalifa sàll moom amul problème. li ma leen mun a giiñal mooy xalifa sàll tey buñ ko tegoon nag Basirou Diomaye Faye wala ñu tegloo wala ñu teg ko Falilou Keita na ñoo ñu def débat xalifa sàll yow ak Amadou Ba ñooñu di wax noonu ñoo leen ñoo leen ñu def débat ak yéen li ma mun a xam li ma leen mun a xamal mooy dinañ leen futti ba ngeen set wecc parce que juridiquement dañ leen futti ba ngeen set moo tax tey amatu leen pexe politiquement tamit dañ leen futti ba ngeen set wecc Khalifa Sall yow depuis 1960 ya ngi fi 40 ans parti social parti socialiste ils n'ont rien foutu ñi gëna tarder le Sénégal yeen si ngeen bokk te yow taxaw fi tay di am lu ngay wax ñaata at ay 60 ak lu teg ay xalé yu ndaw am 43 ans saa yi politique bi ngeen di def ni xewi na yéen xewi ngeen Dakar bu saf ñaar yoon wax si yeen sax perte temps la. wax si yéen perte temps la soxor moo leen jàpp soxor moo leen jàpp mais di ngeen xam ne sénégalais yeewu nen sénégalais yeewu nen sàcc ay milliards am ay appartement fu nekk ci àddina seeni doom seeni jabar nekk ay millionnaire rongoñu baa doole di siim ci rey buur loolu jeex na Sénégal sénégalais yi dinañ jël seen responsabilité te jël nañ seen responsabilité te Sénégal Afrique va changer incha allahu taala